mbokk yi salaamaaleykum wa ñu ngi leen di nuyu siyaar nañu ñëpp ñi seetaan euh, ci suñu plateforme yëpp Facebook Twitter Instagram YouTube ak sa site officiel de di senego point com tey actualité la ñuy waxtaanee actualité mooy li nga xamante ni rek mooy dox ci biir réew mi ay xew-xew ñu dugg ci biir nit ñi ak euh, euh, jëfu nit ñi ak fi nit ñi toll jamono ji muy wàllu wàllub sëriñ wala bokk wàllu fétiche kan mooy sëriñ ak ñiy def fétiche ndaxte fi mu nekk nii. mi ngi law loolu ci réew mi kenn xamatul kan mooy sëriñ kenn xamatul kan moom am borom xam-xam sëriñ Bara Kebe moom la ñu invité tey borom xam-xam la ñu war a waxtaan ci yooyu mu am yu bëri yoo xamante ni bëgg nañu ko laaye biir sëriñ Bara ñu bàyyi la nga nuyoog ñuy seetaan ci Sénégal. aouzu billahi samiil aliim mina shaytaani rajim wa inni unziha bika wa suriyataha mina shaytaani rajim rabbi unzu bika min hamasati shayatin wa unzu bika rabbi an yahdurun bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw ba ñu nuyoo mbooleem jullit yëpp yi ñu bàyyi xel. Hmm. di ñaan yàlla suñuy kàddu fekk leen ci jàmm di la ziara Pape Maguette. Hmm. di mbokk yi nga xam ne fekk nañ leen yëpp ci plateau bi. Hmm. di fas yéene ñëw ci waxtaan li nga ñu laaj. mooy lan mooy lasaraar. ak lan mooy fétiche. voilà euh, lasaraar wala fétiche. mooy lan. lasaraar mooy sir maanaam sëriñ buy yëngatu ci wàllu ñaan. sëriñ buy yëngatu ci wàllum ñaan. ñaan kooku mën nañ ko tuddee sëriñ. mën nañ ko tuddee wala ñaankat. maanaam sa lasraar moom saay boo ko waxee. Hmm. bu jaaree ci yoon rek mooy sëriñ buy yëngatu ci wàllu ñaan. sëriñ buy yëngatu ci wàllum ñaan mais bi yëngatu ci wàllum ñaan boobu noonu kon kooku ci ban anam la koy jëfee alxuraan la wala lan lay def. waaw xam nga lasraar. ñu bari dañuy jaawale léegi la jamono yàqu. Hmm. da ngay dégg sax ko naan ak pouvoir bokkul. Hmm. waroon na ma am pouvoir nan la ko wolof di wax. <laughs> waaw ñu bari dañuy dañuy wax loolu da ngay gis ko toog ci plateau. Hmm. di wax moom di weddi boppam. Hmm. lasraar dafa am yoo xam ne moom na nit ki di composé door a doon sëriñ ñëpp asraar. Hmm. bi si njëkk. mooy da war a jàng. jàng alquran. même soo mokkulut mais nga jàng ba xam. ñaareel ba ci topp. nga xàmmee ismullahi ahsam yi maanaam turu yàlla yi. ndax bari na nit ñi nga xam ne. dañuy wird tour woo xam ne dafay jàpp tur yàlla. Mm-hmm. maanaam tour woo xam ne dafay jàpp 66. te 66 mm-hmm. ku ne xam ne allahu la. Mm-hmm. mais yaa ngi lay jox benn talsam boo xam ne boo ko wàccee 66 la lay jox te fekk ci turu seytaane yi la. kon nga xàmmee turu yàlla yi. ak turu seytaane yi. ndax ni suñu borom baree ay tour noonu la iblis baree ay tur. léegi nag loolu ñaar la ñetteel ba ci toom nga xam xel mënu joom maanaam nga xam xam-xamu biddiw. xam-xamu biddiw waaw il nga am xam xam-xam-xam bu biddiw mm-hmm. waxuma la ngat nga nga nga nga nga peeg ko mais da nga ko war a xam mm-hmm. peeg ko beneen affaire la peeg ko mm-hmm. mooy dara ëmp la ci mooy li ñuy wax naan yow sa biddiw mooy nangam sa biddiw mooy nangam la ñuy waxee mun di beneen bi si topp mooy nga xam xilmul xaatim maanaam nga mën a dagg xaatim dagg xaatim nga xam ne yow aaye buñ la mën a jox di nga ko mën a adat sifre ko mën ko dagg te aadat chiffre balaa nga koy mën a da ngay xam-xam-xamu chiffre maanaam suñ la waxee alif nga mën a xam ne alif benn la jàpp suñ la waxee tàddora nga mën a xam ne neuf la jàpp luñ la mën a wax nga xam ne araf boobu lu mu jàpp loolu da ko war a xam d'accord maanaam ay conditions loo xam ne nit mënut a yëngutu ci lasraar te xamu ko hmm. loolu c'est impossible voilà léegi léegi conditions yooyu noonu nga ma wax xam naa sax dina am yu bëri yoo xamante nii mi ngi ci mais danga nga ma junj rek hmm. léegi euh, euh, fétiche ak sëriñ léegi dañu toll jamono joo xamante ni euh, sëriñ Baara nit ñi dañoo jaaxle dëkk bi àdduna bi boog daa tëra di léegi mbir yi jaxasoo feebar yeeg ñàkk beek euh, ñii di wut am am ñii di wut tekki ñiy jaaxle ñoo ëpp léegi nag ñu bëri dañuy dem ci ci ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sëriñ si wala ñuy def fétiche léegi fétiche kiy def fétiche moom mooy kan lan la ci lislaam wax ak fétiche naka lañ koy euh, euh, jëfandee ak lan mooy àtteem Pape Maguette bëgg hmm. naa ñu ñu ñu ñu leeral lu bari waaw gis nga question bi war a jiitu hmm. mooy lu tax suñu maam yi nga xam ne ñoo fi nekkoon di yëngatu ci laal wala salaam hmm. xamuñu woon média tasuñu woon secret daaw ñu toog di tas secret ci mpénc te ñoo ñu ëpp résultat ñun ñu fi nekk suuf sax bu buñ ko masaan tibb hmm. jox la ko la nga cay xaajo ja nga am da nga koy fa jox ak xaajo ju mën a doon hmm. te ñun léegi dana la bindal feuille yu cinq mètres hmm. jox la ko te tax sa aajo du faj ak perkaal bu gudd ak perkaal bu gudd ak laaj bi bëri waaw te sax sa aajo du bari tax sa aajo du fajo du faju question bi loolu la ñaari bi si topp mooy lasraar ak fétiche dafa mel ne lëndam ak leer bokkut xam-xam xam-xam yi am dafa bari fi ne nii boo demoon Burkina la ñuy utiliser xam-xam ba ñuy jëfandikoo bokkul ñun xam-xam bi ñuy jëfandikoo ndax ñun suñuy maam dafa am culture bu ñu fi may mm-hmm. boo gisee lu jëm ci wàllu tuur yi nga xam ne moom moo fi am mm-hmm. bokkuloo sax ak fétiche mm-hmm. parce que fétiche da ngay dem ci jalanke mbaa nga dem ci basi mbaa nga dem ci voodoo mbaa nga dem ci yeneen am na beneen tur yooyu bari yoo xam ne mun ko mm. toogoon def dafa dafa dafa dafa yeetu mm. léegi nag boo gisee suñu mag ñi ñun lu ñu amoon mm. boo gisee léegi mu deñ fi parce que suñu boroomi xam-xam yi ñuy woowee ay boroomi xam-xam dañoo ñàkk xam gis nga dafa am loo xam ne li tax mu xew mooy ku jóg ne man damaa ami jinne parce que jinne kenn du ko consulter maanaam ñëw ci nit déedéet kenn du ko consulter man man ma waxee ne man damaa am ay jinne lan ban consulté nga mën nag ma mën a consulté ba mën a xam naa mënuma xam ne ah, waaw xanaa nga génneel ma jinne tegal ma waaw waaw dañuy rek mhm. bu dëgg rek day dëgg li mhm. ñuy wax dara du ci dëgg parce que li tax ñuy wax ne dañoo am jinne xam-xam bi ñu néew la la ñu mottilikoo ci ay jinne mhm. te jinne même su fekkee ne dafay ànd ak yow discret lay njëkk a bi mu njëkk def defee mooy discret Mm. il fallait que yéen ñaar li ngeen di jëfandikoo mu yem ci seen yéen ñaar mm. même say njaboot sax dañ di yow da lay interdit mm. yow nga nekk ak sa njaboot mm-hmm. kon loolu benn pay da nga a di beru da nga war di beru ñi ko fi am ñi nga xam ne am nañ ko te di ko jëfandikoo seeni melokaan du juste bu teyee mën nañoo mel nii bu subaa ñu mel neneen mm-hmm. léegi lan mooy fétiche fétiche mooy yoonu saytaane maanaam mooy zulmaani yu zulmaani yu mooy xam-xam bu ñuul zulmaani yu mooy xam-xam bu ñuul mm. loolu mooy fitis mm. léegi ñaari xam-xam moo fi am mm. bu leer mooy lasraar di nuuraani yu bu lëndam mooy xam-xam bu ñuul mooy fitis ñi nga xam ne nag xamuñu dara ci lasraar ndax temps bi nga war a jàng ngir mën ci dara dafa yàgg sinon yi rek ngay nekk mooy jël kayit yeeg copier dajal say kayit yu bari nekk ci YouTube beeg TikTok bi di teg ku la gis jàpp ne yow boroom xam-xam bu rëy nga fekk li nga yor kamaatara kese la. mais kii def fétiche lan la àndal. léegi kii def fétiche seytaane rek la mën a àndal. ànd ak jinne. déedéet waa jinne seytaane benn la. waaw parce que seytaane yi mooy jinne yi nga xam ne tuubuñu. waaw. Mhm. parce que iblis bu ñu fàtte ne iblis bu ñu fàtte ne. Mhm. la. waaye jinne yi nga xam ne tuubuñu ñooy seytaane yi. Mhm. da ngay dégg ba ne kuy wax ne borom xam-xam la toog ci plateau sax naan la jinneek rab bokkuñu dëmm seytaane bokkuñu. xëy na dinañ def yeneen palaato yoo xam ne dinañ gën a développer lu bari mais gis nga euh, fétiche mooy nguuru iblis hmm. lii laa soxla mooy dama soxla nga may tuural deret hmm. nga samp sa benn basi mbaa nga samp sa benn jalanke béjjeeni kooba yi ngay soxla béjjeenu nag yi ngay soxla sox ci la ca war a sox samp ko ci benn bërëb di ma fa tuural deret soxla boo am bu ko ñaan yàlla ñëwal ba ci man nga ñaan ma ko mu am ma nga tuural ma deret ji ma soxla tuural ma soow mi ma soxla tuural ma sàngara si ma soxla su ko defee soxla bi man ma saafara ko hmm. iblis mën na lu weesu loolu. ba mooy bu bon bi moom. loolu mooy fétiche. yàlla gërëmu ko boobu. <laughs> waaw loolu kay. xam naa mën nga maanaam question bi moom mën nga ma ko mën nga koo tontu. waaw mën naa ko tontu moom bu bon la. maanaam dama ne. Hmm. yow nga nga wax ak saytaane. Hmm. saytaane mu ne la dama boo bëggee jëflanteeg man. ni ngay def mooy danga may wutal béjjéenu kooba. béjjéenu nagu dëj. béjjéenu béyu dëj béjjeenu nangam béjjeenu nangam am na yeneen yoo xam ne damañu ko mën a tudd ndax li may wax man lu ma xam la waaw waxoon tuuma mm. li may wax ban borom xam-xam du ko mm. ndax maa leen ci jiitu mm. man ci ci ci ci ci ci zulmaani laa njëkke ci nooraane mais nag am na ñu la ko gën xam de sëñ waaw dama ne wax dama ne xam naa dama am na ñu la gën a aay de la gën a jàng tamit waaw dama ne li ma wax ni euh, Pape xam nga dama ne li may wax ci xam-xam laa koy teg li tax ma ne kenn du ko dindi mooy li may wax dafa wér dama ni mm-hmm. booy samp basi mm-hmm. koo xam ne mën naa samp basi mm-hmm. man mën na maa samp basi mën na maa samp jalanke bokkul ak yow da ngay woote ñu sampal la ko fii majorité ñi fii yëngatu ci walla saa dañuy woote nit koo xam ne mu ñëw sampal leen ko xam nga bokkul kon xam ngeen ne man li may wax lu ma xam la léegi soo sampee ba pare nag nan ngay def mooy seytaane bi nga xam ne moom ngay defal pacte lan ngay def ak moom pacte daf naa la danga may tuural dereetu saay boo amee soxla génne nangam ci ay guro mbaa nga génne nangam ci ci bay wala ci xar wala ci ginaar mm-hmm. tuural ma ko fii wala mu ne la nga boole ceeg sàngara wala mu ne boole nga ceeg nangam mm-hmm. bul ñaan yàlla sama digganteeg yow yoonu yàlla amu ci mm-hmm. man ak yaw la amul intervention direct direct mais léegi yow soo tuuree ba pare nag waxal ak man wax ma li nga bëgg nga nga wax wax ko ci lii nga sam kon yow génne na la ci cadre l'islam ndax yow dèjà yow ñaanatoo sa bi ngay bokk la nag ki nga xam ne hmm. dangaa am soxla ñëw fekk ko ci biir këram hmm. fekk ko mu yor kurusam di jaam yàlla hmm. ragal yàlla lool ndax sëriñu asraar dafa am lu mu composé ndax sekkere sàkkara ak sëriñ dafa am yu yoo xam ne ñoom ñoo ko bokk ñoom ñépp gis nga sàkkara lu la ci sa borom sant moom na la sant ci la sëriñu asraar moom na la sant ci sekkere sekkere ak sàkkara liñ ci xam mooy nëbb sàkkara mooy lan ormaal ko muur ko sàmm ko maandu ci sa sàkkara loolu la na ci sant sëriñ sikkar saraxe sangu suuru danga war a xam cuuraay mais sëriñ yooyu noonu ngay wax noonu ñun ñu ngi koy gis lu bëri ñu yor alxuraan ak téye kurus comme yow tey jii ni yow nga téye sa kurus mhm. bu ñu la fekkee sa kër yaa ngi ci teg ay kaamil ay téere mais ñu ci bëri na ma yàlla baal am na ñoo xam ne seen xam-xam demeewul noonu dañuy mbubboo loolu mais demeewul noonu tamit yooyu am na. ñaata journaliste ma day misaal rek. ñaata ñuy woote woo journaliste su yor carte journaliste. te duñ mm. ay journaliste. waaw bari na moom léegi moom bari na. xam nga du jeex moom bari na trop. waaye tekkiwut ne ku sol kaala gu rëy. Mm. yor kurus ku gudd. sol garab bu mbaa koppati bu rëy. Mm. rep sëriñ nga. ndax sénégalais nit sax laa wax moo mel noonu. lépp loo xam ne dafa dox ci dëkk bi. ay nit ñooy jóg di ko mbubboo. loolu moom mook jamono ji ñoo ànd. Mm-hmm. loo na mais jinne yi ngay wax. Mm-hmm. am na sëriñ yu ànd ak ay jinne effectivement am na mais ñi nga xamante ni da nga naan dañuy consulter jinne nga ni loolu du dëgg mm, ci fii si Dakar waaw kenn waxu ci dëgg kenn waxu ci dëgg tout le monde loolu fan nga ko teg ci xam-xam kiy toog ne dama ànd ak jinne lu may def ñoom laa ciy waxtaanal mm-hmm. lu may liggéey ñoom laa ciy waxtaanal mm-hmm. ñoo may jox secret yi mm-hmm. ma mën a def li may def damay wax ak jinne yi am naa jabaru jinne am naa xaritu jinne loolu am na wala amul. Dakar gii. waaw ñi ma gis ci média bi. Hmm. ñëpp dañuy fen ah Dakar gi ngay wax. dakaar gii laa wax. ñoom ñëpp waxuñu dëgg ñi ma gis ci média yi. Hmm. ñëpp tout le monde lak laa la wax. tout le monde. tout le monde yi ne ci média yi di wax ne am nañ jinne ñëpp dañuy fen di waay. Ah, waaw. yow naka la ñuy amee seen i jinne wax li ñuy wax yow nga toog sa kër wala toog micro te micro bi nii nga ni li ñuy wax du dëgg man moo bi ngay utiliser bëgguma ko utiliser sax. mooy fen xam naa da nga koy a mooy fen gi la waaw xam nga. <laughs> mooy wax naa la ko ci début bi nee naa la dafa am loo xam ne kenn du ko consulter. jinne kenn du ko consulter. déedéet kenn wax ak moom. kenn consulter maanaam xam nga yow boo amee feebar. waaw boo demee ci médecin bi ni muy def da lay defal consultation. waaw waaw léegi yow boo nee am kan moo lay defal consulter pour mën ne yow am nga jinne xanaa sëriñ bi ko xam comme yow. kay xam loolu. waaw mën nga ko consulter yow. man nit bu ne maa am naa jinne hmm. suñu defee ñaari fan ñetti dinaa xam li mu wax dëgg la warul dëkk wala ci waxuma la ñaari fan ñetti mais ci comportement rek di nga xam ne li muy wax dëgg la wala léegi naka nga xamee ñiy toog ci internet beeg si télé yi ne am nañ jinne yow nga ni loolu du dëgg parce que jinne yi duñu doxee noonu ah, hmm. dafa am nu ñuy doxee hmm. ñoom dafa am spécial noo xam ne mooy seen gis nga boo gisee diggante relation jinne yi ak suñu maam yi li ko indi hmm. li fi xewoon bu njëkk mooy buur yi dañu amoon doole danaa ñëw sa dëkk danaa nekk seen i dëkk dem ba seen peuple bari ñu jox la yokk seen suuf ñu dem dëkk bi gën a bi leen gën a jege. Hmm. ñu dem wóoni kooku ne ko ñëwal nga bokk ci sama nguur wala ma rey la jël sa njaboot euh, jël sa suuf doole ko ci sama suuf. Hmm. soo bañee mu def lim la wax. Hmm. rey la jël say doom yi rafet mu jabaroo leen. ñi ci des mu def leen ay jaam. saw askan yépp mu def leen ay jaam. léegi buur ragalut fetal ragalut xare ndax xare rek la xam. lenn la xa ragaloon mooy fétiche. maanaam sorcière. léegi nag buur yi boo gisee ñu daan moytu sëriñ si. li ko waraloon mooy li leen jaaxaloon mooy sëriñ si daawuñu xare te lu ñu soxla bu buñ ko luñ la wax ne dana am dana am. waaw fi ñu toog la ñuy toog moo tax ñu ragaloon sëriñ si. Hmm. léegi nag suñu maam yi nga xam ne nag amuñu woon doole. te buur yi nooteel gi metti na ñoo daan def pacte ak yenn jinne yi. Hmm. am na ñoo xam ne sax defu woon pacte ak seytaane mais am na ñoo xam ne pacte seytaane lañ defaloon pacte mooy dama lay jàngal ay xam-xam pour nga mën a mucc ci jinne yi pour nga mën a mucc ci buur yi pour buur yi mën la respecté wala pour buur yi mën la jël ndax buur bu see borom xam-xam li muy njëkk a def mooy daf koy jël teg ci wetam ngir mu koy jàppale ci yenn gàllaajam yi loola waxoon mag ñu ci bari daan dem di def ay pacte ak jinne yi parce que jànguñu woon li leen daan dimbale mooy dañ daan def pacte ak jinne yi mu leen di jàngal xam-xam su ko defee buur bi su yégee ne diw am na xam-xam mu jël ko teg ci wetam su su suy nangu suufu jàmbur yi yeeg juru jàmbur yi ba yegg si ci moom daf koy jéggi ndax daf koy ragalee xam-xam mm-hmm. Mm-hmm. loolu moo amoon moo tax buur daawul rey sëriñu féticheur mm-hmm. waaw léegi euh, fétiche bi bëri na fi loolu wax nga ne dañuy laaj deret dem nañ sax ba dafa mel ni ki bakkat nañ koy laaj doomu aadama ba gis nañ fan yi paase yàgg na sax ñuy dégg naan rey nañ nit rey nañ nit rey nañ nit nit ñu bëri naan ay sacrifice laa ak affaire fétiche ak kenn xamul mais bii yoon jàpp nañu koo xamante ni nee nañ féticheur la ba jàpp ko dugal ko ci kaso bi ndax dafa rey doomu aadama loolu nag nag nga ko jàngatee loolu lu am la wala yow sa jàngat lan la may. bañ tëj ko kaso pour àtte ci moom ni mm, pour mm. àtte ci moom ne fétiche maanaam li mu def sacrifice la dafay xaw a jafe. Mm-hmm. ndax itam li mu def. moom yàlla ak ndaw si rek ñoo ko xam mhm. la ci xew mhm. ndax ñoom ñoo fa nekkoon ku ci mhm. wax xëy na enquêteurs yi lam leen di wax lañuy sukkandiku waaye su fekkee ne bi muy def bi mu rey ndaw si mu rey sacrifice moo tax mu rey ko yóbbu gi ñu ko yóbbu kaso lii tax du mën a yeggale liggéey mooy buñ ko boole ñu ñu bañ koo boolee ki nit maanaam fañ ko jàpp ci li mu def waaw kaso bañ koy yóbbu ñu bañ koo boole ki nit ndax la ñu bañ ko boole ak ay nit ak ay nit ñu dañ ko war a ber dañ ko ber ndax lan parce bu ñu ko berul bu fekkee ne sacrifice la def. Hmm. la muy yeggale mën na ko yeggale ci kaso ba ndax am na gàllaaj yoo xam ne balaa nga koy def wala am na xam-xam yoo xam ne ci fétiche balaa nga koy def faaw nga def jéeya faaw nga dugg kaso. faaw nga dugg kaso waaw faaw nga def jéeya. faaw nga def rëy nit nit ñi su fekkee ne itam sacrifice la. Hmm. te jël nañ ko boole ko ak nit ñi mu continuer nekk fa. Hmm. te buntu xataluñ ko. maanaam lañ ba mu yeggale liggéeyam balaa yàgg di ngeen ko mu doxewaat soxlaam. maanaam mën na bañ a yàgg ci kaso bi. ba ne bu fekkee ne li mu def sacrifice la. waaw bu ñu demee bàyyi ko ci biir nit ñi ba mu yeggalee liggéeyam. Hmm. balaa yàgg ngeen gis ko mu doxiwaat soxla. léegi nit yi yi ñu ko booleel. Hmm. lan moo tax nga ne nañ ko ber lan moo tax buñ ko bàyyee ci nit ñi. Hmm. mën na àggale liggéeyam génn dem yoonam. parce que parce que parce que sacrifice bi mu war a def. la ko yeggalee. mais nit yu muy nekkal. nit yi muy nekkal. day jëfandikoo ñooñu. waaw mën na jëfandikoo ñooñu. nu mu lay jëfandikoo da leen di rey benn par benn. déedéet du leen rey ci loxoy boppam. sëñ bi gindi ma lan lan la mën a def ñooñu. waaw dafa am loo xam ne moom laa lay expliquer ne la lu lu lu lu xóot la saa à dire que du leen rey ci loxoy boppam. mais pacte yi li muy doon. Hmm. mooy su fekkee ne def nga benn sacrifice ba pare. Hmm. xam nga ba tey dëgg lu ma ne moom dafa sacrifier. waaw maanaam encore une fois dama bëgg mu leer dama def su fekkee ne. rey gi mu rey ndaw si sacrifice moo tax mu def ko. Hmm. su demee foofu ñu boole ko ki nit fa lay yeggalee liggéeyam ni muy yeggalee liggéeyam ni ma la mën a junj ndax la mën a leeral lépp. waaw te xam-xam xaw doy waar. li ci gis mooy bu defee sacrifice ba fii ba bii ba pare. Hmm. su demee nekk ak ñooñu jinne yi nga xam ne moom la defal pacte mooy tànn ñenn ñoom ciy jël ci ñi muy nekkal. Hmm. di xam nu muy dundee ak ñoom ci ci lekkin ci lu ma mën a doon ba mën na ci jël kenn. ba mën na ci jël kenn. daan na ci jël kenn même bu doon jëlul kenn mën na ci détruire kenn koo xam ne moom dina ko mën a jàppale ci liggéeyam. Hmm. moo tax ñu beer ko moo gën ñu koy booleek nit maanaam jinne bi day ànd ak moom. waaw ci pacte bi. ba ci biir kaso bi léegi ñi mu nekkal. su fekkee na sacrifice tax waaw bu fekkee bu fekkee la bu fekkee la ñuy wax. bu fekkee loolu am na point d'interrogation. léegi jinne bi mën na tànnaat keneen ci biir chambre. ba mu nekk mu yóbbu ko faat ko. wala boog mu am nu mu ko utiliser. moom jinne bi ci boppam. Hmm, yaa ngi wax lu garaaw. waaw lu doy waar la dama ne la lii may wax làmbatuma ko sëñ bi. Hmm. bu émission bi guddoon ngay xam lu bari. dama ne la lii may wax nii. làmbatuwuma ko. danañ amaan beneen jotaay boo xam ne dañ koy gën a yaatal def ko en direct incha allah. li ma lay wax làmbatuwuma ko gis nga. mbiru fétiche. Mhm. ñi bari ñi fi nekk fii nii di wax yàlla mi ma tiim xam ne na xamuñu ci dara. xamuñu ci dara déedéet. féticheur parce que nit ñi day jaawale chasseur. Mhm. maanaam rëbbkat ak féticheur. boo demee Mali rëbbkat yi. Mhm. ak féticheurs yi ñoo bokk même solo. waaw ñoo bokk lu ñuy solo. gis nga Coupe d'Afrique de président malien bi dafa dajale féticheurs yeeg rëbbkat yëpp. Mm-hmm. ñuy woote woo ak sëriñ. Mm-hmm. teg xaalis bu bari ci taaboo bi pour ñu jël coupe d'Afrique Mali fu mu toogee. teel naa toog moom. Hmm? <laughs> xentuwul sax Mali bariwut ay sëriñu féticheur Mali ay chasseur la bari. ay chasseur ay rëbbkat la bari. fii de am na ku fi ñëwoon waaye kooku aay na de. waaw da loolay wan ne aay na. colin bi dafa ñàng wax ji dëgër ah. assurance. Ah. xam nga moom laa lay expliquer que problème bi bii nga am moom la sénégalais yu bari am ah. uh-huh. yére yooyu boo demee fii Tilène dañ koy jaay. waaw ak pétaaw yeeg. waaw béjjén yëpp boo demee Tilène dañ koy jaay. Hmm. décoration la waa léegi sëñ bi lan moo tax sëriñ ñiy yëngatu ci fétiche dëkk hmm. vrai féticheurs yi nga xam ne dañuy yëngatu ci fétiche dañuy solu sol gu rafet. Hmm. di dawal oto yu rafet. comme yow quoi. waaw comme ni nga solo ah. mën naa ne sama solo bu rafet. Mm-hmm. doon nit simple. di dox comme ni nit ñi di doxe mm-hmm. waaye la ñuy liggéey fan ko samp la. Mm-hmm. am nañ seen kër foo xam ne spécial kenn du fa dugg. ñoom rek ku dul ñoom kese kott ñoo fay dugg. bu buñ fa duggee mbooleem lu leen nit mën a wax dañuy dugg wax ak jalang bi li ñuy wax ak moom wala ñu wax ak base bi li ñuy wax ak moom bu ñu génnee tuur deret waa ñu tuur sàngalaw lu mu leen laaj ñu joxe ko. bu ñu paree pare nañ ci. léegi sëñ bi li ma lay bëgg a wax li ma lay bëgg laaj muy ñaar yoo xam ne moom la ñuy mujjee. Mhm. Euh, jamono jii ñu nekk fétiche bee fi ëpp doole. wala sëriñ yee fi ëpp doole ñi fi mubboo fétiche ñoo fi ëpp doole. mais fétiche bi dafa bëri doole parce que rey jeeg. wax da ngay lu ne ngay dégg fait divers rek lu kenn xamul. mais yéen yéen bëri ngeen fi mais euh, am na ñoo xam ne dañuy wootewu wu sëriñ ñii rek mais lu yàlla xam doy na. gis nga li ñuy woote woowe ak sëriñ bu ñu bi mayoon daa mel yéen aayu leen quoi ñee ñoo aay. waaw wax waaw xam nga li tax war a war war a waraloo. waaw sénégalais moo bëggut lu simple. moo bëggul lu simple. moo bëggul lu simple. Mhm. ci sa simplicité bii nga solu tey. Mhm. soo génnoon fii. Mhm. wàcc ci taxi. koo xam ne yow yow lay xaar pour nga jariñ ko bu ñëwee du lu wax ak yow. <laughs> mais tey jii am na koo xam ne romb ay fukki nit romb nañ koy solo solo bu jekk takk costume mm-hmm. wàcc jaar yoo nekk ci 4x4 ci foofu la lay séentoo mm-hmm. sénégalais moo bëggul lu simple comme que bëggul lu simple mm-hmm. léegi ñi nga xam ne nag ñooy ay ñi ñuy woowee ay sëriñ wala ay féticheur parce que ñoom ñëpp laay boole ñooñ ñu leen di woowee dañoo xool philosophie sénégalais yi inspiré sénégalais yi la ñu dugg xam sénégalais yi lan nga mën a def pour mën a nekk ak ñoom mooy lan mooy parce que seen pas-pas dëgërul nu ñu mën a def mooy fekk si leen ci ñoom li ñu bëgg. Mm-hmm. dañoo bëgg koy woote woo mbirum deret ñu fekk si leen ci. Mm-hmm. dañoo bëgg woo kuy woote woo kuy woote woo daara. Mm-hmm. di taal di wax ay alxuraan yu leer di wax ay ay hadis yu leer di làkk arab yu set wet. di ko neexal ñu fekk si leen ci. loolu jotewul dara ak lasraar. dana la dimbali nag ngir boo nekkee ci lasraar. ngir nga mën a yombal sa liggéey. waaye lasraar beneen mbir la. beneen mbir la mais am na ñoo ci nekk na nekk ñoo xamante nii ñoom xaalis bee leen gën a intéressé li ñuy laaj bëri na mais sëriñ bi nekk ci lasaraar boobu ngay wax noonu kooku est-ce que dafa war a nekk koo xamante ni bu lay liggéey dalay laaj yenn somme yoo xamante ni mën nga dugg fu ne doo ko am. sëriñ mën naa laaj un milliard. ah xanaa liggéeyoo te yàlla tax. waaw da ngay jëfandikoo alxuraan. waaw da ngay déglu xanaa dimbaliwoo doomu aadama ki sonn. waaw da ngay déglu may expliqué la xam nga da laaj. sëriñ hmm. mën naa laaj un milliard. waaw mais joxe résultat. dama ne la mag ñi daawuñu laaj dara. Mm-hmm. te nga naan ñëw ñu tibb suuf jox la mën naa la ci misaal ci kenn. Mm-hmm. am na ko ñuy wax Baye Modou Diop ngulum ngulum mi ngi nekk diggante Kaolack. Mm-hmm. kii euh, gin gi neew. dangay jox 37 kilomètres. dugg ci biir àll bi. man lu may wax ci xam-xam laa koy teg. Baye Modou ngulum. ku yàlla may la li may mm. wax sax xam naa du ko neex ndax gënalu ko mm. waaye dafa doon exemple boo xam ne mm-hmm. dañ ko war di joxe mm-hmm. autorité yu bari fii may wax xam nañ ko mm-hmm. jaar naa ci loxoom dama ne la autorité yu bari yi ñuy wax fii xam nañ bàyyi mut jom ngulum bàyyi mut jom ngulum lu ma xam ay tracteur am la yor di bay di dundee li muy bay lay dundee su bayee ba mu jeex mu xaaj leen ñu jof ko àddiyee yóbbu ko da ci des denc ko pour déwén da ci des bu dundee yéen ñëpp yéen a bokk même kayit bi mu lay jox ay côté kayitu photocopie lay doon. Mm. te lum ci ñaan yàlla nangu ko. Mm. parce que li ko waral mooy la ñuy wax xijaaba. xijaaba mm. li koy joxe mooy nangoo wird. ma la wax sànq ne la sëriñub asraar. yii ma ko composé. da ngay xam turu yàlla. ba pare nangoo sikkar. Mm-hmm. xam saafara. nangoo sangu. xam cuuraay. nangoo suuru. xam sarax. nangoo saraxe man personnellement dama lay wax nit dina ñëw diis problème ma xam ne kii seetal ko xam ne sarax bii rek mooy gàllankoor ma ne ko demal nga def sarax sàngam mais am na ñoo xam ne soo lañ ko waxee dañ la ñàkkal fayda dañuy jàpp ne sax yow xamoo dara fekk sarax boobu mooy seen solution parce que nit ki kii saraxu koy régler problème am kii sangooy régler problème am kii sikaraay régler problème kii cuuraay régler problème lii nag soo ko comp soo mënta ràññee ku ci nekk lu koy régler te moo xamoo tabixa nit ki mm. xamoo biddiwu nit ki ci lu muy taxaw mm. xamoo ban bis lay xëyee xamoo ban heure lay xëyee di dajeek weer wi wala muy daje jant bi mm-hmm. loolu yëpp mënoo koo xam ndax jàngoo xel mu nit jom wala jàngoo xam-xam wala jàngoo xam-xam chiffre jàngoo asra mm. mënoo composé loolu loolu mooy diagnostic yi ak ordonnance yi nga wax si léegi euh, sëñ bi euh, fi ñuy jeexalee déegi bari na mm-hmm. yaa t de mort mm-hmm. xaw ma mystique bee koy def xaw ma Euh, xaw ma sëriñ si la xaw ma nu mu demee noonu. xaw ma di def loo xamante nii doomu aadama ba mu këpp sa kaw la xaw ma. Mm-hmm. xaw ma ba xam nag yàlla la parce que fi mu nekk ni moom man maa ngi door a gëm ne man fen di moon lañ nekk. Mm-hmm. axiru zaman lañ nekk. léegi bëri na feebar yi bëri nañ. waaw xam nga senegal daf senegal yi dafa xaw a bëgg lu yomb. Mm-hmm. parce que itam dafa am lu ñu alquran wax dànkaafuñu fi. saay bu tooñ ji baree. bakkaar yi bari. mbuugal gi ma indi mbuugal wutar. suñu maam aadama ba fi ñu doon loolu fa demee li tax Sénégal muccoon ci yenn yi ñu daan dal parce que sénégalais lu bari daf ca daan moytu dañu amoon mag ñoo xam ne dafa am nañu yare woon bu njëkk bu la mosaan bëgg jigéen sax di ko ko wax daawoo ñemee dugg seen biir kër ci bunt bi nga daan taxaw mën nga faa taxaw timis ba gannaaw gee di xaar mu génn pour nga mën ko ko wax bu njëkk boo mosaan gis poo ju jigéen kese poo ju jigéen boo demee doo nelaw léegi mbooleem li nga xam ne dañu ko daan nëbb ak mbooleem li nga xam ne kersa orma yaru yiiw yépp dafay dañ te amul benn mbon guñ daan dégg bitim réew te dajut kàpp ci réew bi wax ma la mi ngi ci réew mi dama ne te dajul kàpp ci réew bi fii ñaay sax amul génn mbon goo xam ne dañ ko daan dégg ma la gis mais dañ ko daan dégg te dajul kàpp ci réew mi mm-hmm. lépp loo xam ne bàkkaar la ak tooñeel ci suñu digganteeg suñu borom mm-hmm. ak tooñeel suñu digganteeg suñuy morom mm-hmm. ëpp doole nit ki nangu alalam tooñ nit ki noot ko tëj ko ci kaso bi nangu suufu su jàmbur toroxal ko. génne nit këram. ñàkk dimbali doomu aadama ñàkk dimbali nit ñi ndax milliardaires ñooy dimbalante ci seen biir. Mm-hmm. ñii ñàkk di continuer di ñàkk. Mm-hmm. jaay nit kër jaay ko fukki nit ak juróom. Mm-hmm. boo xam ne ci noot nit ñi ci lañu dëkk. dimbali ñu sénégalais yërëmuñu sénégalais yooyu yëpp bu dajee. mbugalu suñu borom wàcc. nañu nangu ne ñun ñooy responsable bi. ñun sénégalais yi. li ci jiitu mooy parents parents yi yarutuñ seen njaboot. Mm. moo tax njaboot gi mel nii mel nii. Mm. ñaari bi ci état li ko war defu ko. Mm. parce que ci nooteel askanam xeetam ci la dëkk. moo waral mbugalu suñu borom mënu fee ñàkk sëñ bi. kon lii mbugal la daal si mbugal la parce que ñun ñooy dundee nu mu neexee. Mm-hmm. ba pare itam bëgg am lu ñu neex mënul lekk mënul nekk de. dañuy mën dund li neex yàlla. Mm-hmm. ñu am li ñu neex. waaye ñun dañuy bëgg dund ñii mu ñu neexee. bëgg nag am li ñu neex. Mm-hmm. ku la yombalal dund gu nooflaay dund gu neex ku la ko yombalee pour nga topp sa bakkan dalay lay nax àjjana ka la ko yombalal moo la ko jafeel alal ju leew ka la ko yombalal moo la ko ba sax sax euh, ci ni mu demee nii dee ji ni mu bëree ñuy gis suñu kilifa yi kilifa yu mag yi nga xam ni ñoo nekk ci këru diine yi ñu ci bëri di di di génn àdduna nee nañu dafa mel ni kii daal am na ku ma wax ne yàlla fi mu nekk nii balaa muy def li muy def day jël ñi mu rus ñëpp yóbbu ñaar dina ci am na kilifa yoo xam ne dañoo gedd waaw yàqu-yàqu jamono. loolu dégg naa mënatuñu dëkk moom. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que chaque jour ñu gis mënatuñoo sax kili am na kilifa yoo xam ne daan nañu déglu rajo. Mm-hmm. waaye léegi mënatuñoo déglu rajo. ndax saay bu ñu déggee dégg kàddu goo xam ne mësuñu ko dégg. kàddu bu ñaaw. am na ñoo xam ne daan nañu seetaan télé. mais mënatuñoo seetaan télé ndax saay bu ñu seetaanee télé gis lu ñaaw. am na ñoo xam ne nag moom. maanaam euh, sanction bi dafa dal seen kaw. ndax boo amee njaboot. ñuy jàdd di tooñ yow nga xam ne ñi ngi tooñ nga war leen a teere ak tooñ teg leen ci yoon nga noppi hmm. tal sa bopp bu sanction bi ñëwee ci sa kaw lay njëkke doo a wàcc ñoom wàcc ñoom ndax bu ñu fàttee ne kullukum raahi wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi hmm. bu bis pencee suñu borom mbooleem koo xam ne dénkoon na la lu toll ne tarafatal ay ni hmm. bay na luqati naqiir gi sëñ Tuubaa di wax lu toll ne bay na luqati naqiir googu bu la ko dénkee lu toll ne tarafatal ay ni bu bis pencee di nga toog mu ak ñang la dénkoon ña toppan ci sa ginnaaw mu laaj ne ñii ma la dénkoon nan nga la àndoon ak ak ñoom mm. ndax daan nga leen digal li ma leen daan digal mm. ndax daan nga leen tere li ma leen daan tere mm. soo tontoo ba pare mu daal di wëlbatiku ci ñi nga xam ne ñoom ñooy toppee ne leen kii ngeen doon topp ndax yéen lam leen daan wax daan ngeen ko def wala daawu leen ko def moo tax lay dafay jeex foofu mm-hmm. moo tax am na ñoo xam ne li nattu bii dal ci seen kaw. mooy sanction yi suñu borom di joxe. Hmm. dañ ciy daal ci parce que dañoo war a jox te waxuñu. ñoom duñ ci mucc léegi nag sëñ bi ñun suñu kër gi am na jinne. loolu laa doon bëgg laaj loolu laa doon bëgg laaj moo tax loolu moom leeru ma <laughs> loolu moom leeru ma ah, loolu moom yàlla am naa jinne man. ko amut jinne amut. Eh. yeneen bi ko wax. mbaa baax na. waaw loolu leeru ma. leeru moom déedéet loolu leeru ma. Ah, yow de yow nag kii nga de. ragal nga yàlla de lu ñu wax nga ni leeru ma. lu ñu la laaj sur le champ nga ni leeru ma. waaw xam nga itam nit ki. Hmm. maanaam bari xam-xam mi ngi commencé nga yem fi sa xam-xam yem mm-hmm. maarute mi ngi commencé nga yem ci la yàlla dénk mm-hmm. Mm-hmm. amul benn nit bu dajal xam-xam yëpp léegi nit ñi pour ñu mën a dimbali ko il faut ko ñuy yem ci li leen yàlla dénk ñu doyloo ko man boo may laaj ci domaine bi ma xam ñeme na maa teg kaamil wax ci lu ma neex ndax dama ko maîtriser léegi soo ma laajee lu ma xamul awma complexe ne la xawuma ko parce que yàlla binduma ma ma xam lépp. loolu loolu dégg naa ko ci yow beneen li ma lay mujjee laaj. Mhm. ëllëgu réew mi loo ma ci mën a wax ak coow li ak feebar yu bëri yi. ëllëgu réew mi chaque année ma wax ci. Mhm. xëy na tey xëy na nga ma mës a gis ma mais amul at muy dugg ci at mu bees. Mhm. te waxuma saraxu at mi. waxuma li ma gis waxuma liy xew ndax liy xew yàlla ak xam mais li nga gis ngay wax. waaw ndax nit ñi dañuy jaawale ñaar. Hmm. nit dafay taxaw ne ah gis naa ne nangam ak nangam man gis naa ne mu ngi xew mi dina mën naa xew ci réew bi hmm. waaye ca dogalu yàlla ba loolu mbiru yàlla la yàlla mooy xool la ko soob ci jàmm def ko. waaye yow li nga gis ngay wax. nan hmm. nga gis. Euh, euh, ren jii. képp koo xam ne mën nga def juróom-ñaari ndebu laax. boole ko juróom-ñaari kilo suukar. boole ko juróom-ñaari ndabu ceeb yàpp bu weex mhm. nga saraxe ko mhm. boo ko manee def ci sa biir kër mhm. nga génn lépp mu génn toggee ko sa kër génne ko mu génn nga saraxe yaa xam ci daara nga ko yóbbu wala dara fasal ci sa njaboot yàlla mën na laa musal ci musiba yi war a wàcc ci ci ci ci àdduna bi ma ci réew mi daa am yeneen musiba yu nar a wàcc Sénégal maanaam réew réew àdduna bi commencé guñu déet non loolu moom mun kaa dégg. man li ma gis laa lay wax dama ne. ma kaa dégg waxuma la ak sama nafsu dama ne. Hmm. lii ñëw. Hmm. moo gën a pire téeméeri junni lii ñuy dund bu fekkee ne change wuñu suñu dundin. foofu la ñuy tëjee waxtaan bi euh, tegal sa baaraam foofu. Hmm. dañuy amaat beneen jotaay. incha allahu rabbi beneen jotaay dañ koy amaat. Ah. incha allah maa maa ko bëgg a dog foofu. ñu ngi lay gërëm bu baax a baax Serigne Bara Kebe. jërëjëf euh, gis naa ne ku doylu nga ku xam fu ngay yem nga. Euh, li nga xam ngay wax li nga xamul doo ko wax ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. jërëjëf Pape Maguette. Mm-hmm. Euh, kontaan nañu trop ci invitation bi. Euh, lii tamit neex nañu lool. Hmm. ndax ki ñu boole. Hmm. tax ñu xamante. Hmm. day sama nit di sa nit. ndax nit boo leen bokkee xarit rek. daanaka ay xarit ngeen. baara l'africain ñu ngi koy nuyu kon lii ma sol nii sax moo ko ñaw. kon maa ngi koy ziyaara l'africain. waaye di bëgg itam. di am tuuti rek naqar ndax moom sañoon gën a yaatu. waaye xam nga mbirum temps dafa xaw a doy waar. waaye bëgg nañ ci loolu ci invitation bi lépp lu ñu fi wax mu rafet. ndimbalu yàlla la. waaye lu ñu fi wax mu ñaaw doonul woon suñu jubluwaay waaye suñu gàtt